waxoon yëpp côté Ousmane Sonko xam ngeen ne loolu ay kàcc la xam ngeen loolu pour yàq deru senegal la ji bii ni mu def tey bien que man d'accorduma ci day wone ni moom kenn moomu ko kon moom juddul ay ordre kon ñi bëgg yàq suñ der ci àddina bi yëpp naan Macky Sall lu ko neex moo fi am waxuñu dëgg mais li ma neex mooy nawoon fawoon sama gars yi bi ñuy cëppi cëppi Ziguinchor naan gagné nañu gagné nañ dañu xamul ne attekat bu ndaw la mu attee bu yegsee ci attekat bu mag ba amatul benn njëriñ nawoon fawoon dumay ñoon dumaa cour suprême bu ñu demaatee cour suprême cour suprême mënul weddi boppam na xanaa ay ay kilifa fa nekk dumay ñun duma ci cour suprême li ñu dumawaat rek kon ñun ñun meeruñu ci ñun jaaxale wuñ ci ndax nawoon fawoon dañoo demoon Ziguinchor ñu àttee lu mel nii muy tëb di cëppi cëppi di tëb di dal fàtte ne àtte Ziguinchor ak bu Dakar àtte bu njëkk la te àtte bu njëkk du àtte àtte bu mujj lan lay doon argumentaire bi pour waa cassation nañ ko defee woon Ziguinchor rek ndax yoon Sénégal dafa neex mooy mooy boo d'accordul ci àtte bu njëkk nga dem ci àtte bi gën a kawe kon ku xamul dara dof ku jàngul droit xamul tus mooy taxaw bu njëkk rek nga ne gagné nga day ministre Sénégal ko bu njëkk rek gagné nga pour daal di mu am atte am ay appel ay cassation ci sun sun sun justice mooy dañoo xam ne benn nit mën na juum xam nga benn nit moo atte keroog ay juróomi nit ñu atte waat la benn nit atte ñu ñaar ko ko dàq booba da ngay yéeg ci kaw kon benn nit bu atte Ziguinchor benn atte boobu ku dàq tëb gañe nga xamoo dara. Ousmane Sonko bu ko neexee dem jëli fiche parrainage mi tey wala. moom affaire am intéressé wu ma. mais day na pourvoi en moo xam. buy jëli ceeb bi jënam ak wala buy jëli mbàjj wala ci sama yoon. kuy jëli sa mbàjj pour tëdd kaso ba ci sama yoon. kuy jëli sa dépense ba jox sa jàmm ba ci foog damay intéressé. Ah, yow da nga jàpp ne ñun seen nga jaaroon foofu ñu duwa woon la. nga tëb fecc fecc fecc fecc jëlee da da ngaa teel a fecc ah. yow da nga a fecc ah cour suprême tas sa yaakaar ñuy demaat cour booba nga taxaw di bonde waat yow doo nit yee wuloo de yow de koy nax <laughs> koy nax sa bopp. à la fin fan lañ jëm ak dossier bi. mais dossier la yoon moom. yoon moo ni atte bu njëkk du atte atte bu mujj la ñuy wax décision définitive loolu nag ku xamul droit wala nga am dof rek yaa jël première décision comme Ziguinchor wala Dakar fàtte ne dafa am ñu nekk ca kaw attekat yu mag tax nga dof naan gaye nga loolu waxi dof la